bii waxut ak déedéet ñun su feebar déedéet fii ñu internet yi neneen du fii de hmm. ah, <laughs> ah, ne ñu mbokk mbokk internet yi neneen ñun de suñu site bii faruñu ci nguur faruñu ci opposition dëgg la ñu taxawee man de nguur laa faral man su la ah waaw moo tax yaa ngi nii woyadi amoo tabaski man yeewal lañ ma kuy bu rëy tabaski kuy bu rëy lañ ma andi donc loolu mo wax la ne la li mu doon nëbb askanu Sénégal coow li bari yëpp wax na waxi eurobon moom wax na ko ci waxam démb ñëwal si eurobon bi eurobon bi li mu waxul sénégalais yi mooy ki nga xam ni moom moo dem mooy intermédiaire bi muy kan? JP Morgan waaw c'est le plus grand os c'est le c'est l'homme c'est le sponsor principal des des lobbies homosexuels LGBT Gay Paradis logoom ak train am la ñuy dugg pour wër li ñuy def kooku moom mooy intermédiaire bi moo décroché xaalis bi xaritam la ça n'a rien à voir ak kële lu mu nekk LGBT waaw mais jaaxalu la nag kon damay laaj de damay samp laaj nag xaritam la du si waa déglu rek ku si nekk sa koñ am nga fa góor jigéen boo xam bu la nee salaamaaleykum nga ne ko maaleykum salaam te fekk sekkoo leen li muy lijjël sa yoon nekk man xaw ma góor jigéen mën nga ko mën nga xam nit ki mu nekkoon diggante doo ko xam doon kër ta fan yi ma dëkk di laaj moom lay samp di laaj rek ban relation la ñu am ak borom ñaari tur yi amical ban relation amical lan la ñuy fexeel Sénégal ci borom ñaari tur yi amu fi damay laaj amical damay samp laaj relation amical la rek mhm. Michel xaw ma naka Thierry Michel xaw ma Charles Michel Charles Michel mhm. borom ñaari tur waaw charles luc Mélenchon Hmm. défenseur de borom ñaari tour hmm. euh, nu mu euh avocat bi Branco Juan Juan défenseur borom ñaari tour hmm. ñu né dété way JP Morgan défenseur borom ñaari tour sponsor amé ah, lo dara nek wah ñi nga xamni xéxalu ñu borom ñaari tour bokku ñu ci mbir yi xéna dañ sé mënul dara ah benen bir wa wa xana te lu Tony Blair mom ren la bax dafa bax ren de Tony Blair Tony Blair <laughs> <laughs>

ñoom ñoo waxoon tenue bu leer moom moom moo waxoon ma ba euh, nu mu tudd Serigne Gounda waxuloon dara. na sëñ Gounda moom astafurlah le président boog di wax yaa ngi yóbbaale sax moom waxuloon dara. baa jaxate nag kii nu mu tudd Usu moo waxoon ni Charles nu mu. tenue bu leer baaxul. Tony Blair lii lii lii lii lii lii. waaw mais président de la République angle bu mu doon waxee. angle bu mu ko soxlaa bokkul. waaye loolu mooy réalité du pouvoir. waa day liggéey. instant day liggéey dama ne loolu mooy réalité du pouvoir. Mhm. Serigne Gunda moom xam na xam na bu baax luy pouvoir du dëgg moom mi nga xam ne ak bëgg avion ak tukki. Mhm. Serigne Gunda dafa na moon tukki ak avion liggéeyul dara ci bopp réew mi. yow ku toog ñaari weer nan lay liggéey. ah balaa liggéey doo étudier. étudier lan ah. xanaa yow sax tey jii sax buñ la jëlee sax public SNB jour bob jour bu jóg boo ñëwee premier jour. balaa ngaa liggéey sax xanaa su nekkee paré nga di nga non mais da ngay étude de terrain. dama né oh su nekké paré nga da ngay liggéey non dama né su nekké paré nga da ngay liggéey. bàyyi leen TikTok bi ngeen di signaler. Mhm. tapoter leen ko partager tapoter leen live bi partager pour dire. Mhm. lolu mo fi ne. Mhm. Sénégal di ñu naqari dafa bari bari bari bari bari ci waxu wa joju nga xamni mo togon Grand Théâtre di wax. parce que tamit nee na. Mm-hmm. am na rapport Prodac. muy si table. dama koy défier. Mm-hmm. man nee na rapport Prodac bi ñu doon wax mi ngi ci table am tegu. dama mm-hmm. koy défier. dama koy défier. je dis que amul rapport Prodac. foo ko teg ak yan preuve. parce que rapport boobu n'existe pas. Ah amul rapport Prodac. bu génnewee document. wallaahi c'est pas vrai il n'a pas le rapport du Prodac.

parce que nag intention bi fii laa la koy waxee défaite bi mu essuyé contre Mambay Niang daf ko fii la ko téye fii. Mhm. da ko nakari ba hmm ki muy njëkk poursuivre ci nguur gi. Mhm. Mambay Niang lay doon. te ci tank yooyu la nekk. ci tank yooyu la ne du ko ko bal fi la ne. mais yoon xanaa kon yoon yoon tranché na ba pare. li mo wax né na suñu balee justice ba pare. Ah. Nous wax le ministre de la justice on va donner les dossiers aux juges indépendants donc ça veut dire que dans des juges nous ñu au Sénégal un magistrat on ne doit pas dire ça de la magistrature <coughs> xam nga ce que c'est des juges si vous justice ba pare nous, ñu teg fi juges pour orienter les orientations les décisions de justice parce que décision décisions, fii la ko wax naa la wax naa la fi wax naa la fi ci dossier mam bay ñaan wax naa la ko fi te lima la wax du deñ lima doon wax binduma ko dama ko lire te lima wax nit du ko dindi mom mom mi taxaw di wax du ko mhm. dindi du ci dindi œuvre mais puisque procès bobu mu ñak mhm. daf ko metti te un dossier kenn mënu ko juger ñaar yoon dafa fàtte loolu motax amna am dossier bu nga xamante ko bëgg andi indiwaat koku nonu ñu euh, euh, ñakoon ba kanam fat ne fàttur bi tam bu ko bëgg andi indi léegi len ma tur bi dossier bu ne te amnistie bi effacer lépp mooy la koy indiwaat il faut que mu génneewaat ko. le le nom échappe. Euh, euh, ah, ah Fulbert Sambou. Fulbert Sambou waaw. mais loolu il faut mu lever amnistie bi. te amnistie buñ ko lever ñoom ñëpp kon dañuy dellu si kaso bi. dama ne les détenus soi-disant détenus politiques dañuy dellu. amnistie bi moom mooy jiitu ci kaso ba parce que loolu yoon. parce que mënuñoo tànn sepp fii. dama ne. bañ a sepp bële. c'est normal ñëpp képp koo xamante ni génnoon nga ci kaso bi. da ngay dellu da ngay dellu ñu attewaat la mhm. poursuite yi dëkk Bassirou Diomaye su wàccee bopp réew mi dañ koy attewaat mhm. xanaa xamuñu loolu moo tax nag affaire yi ëlum sénégalais jamono ji dama ne day show mhm, du ko def kon day show <coughs> day show bëgg na woon na wax lu neex nit ñi déggoo bañ ne rapport Prodac rapport Prodac mi ngi sama table sama kaw table ñëw yow yuuxu dañ doon yuuxu di tàccu kontaan mais bañ ne dañu war a ànd dem béyi kenn tàccuwul. waaye maam maam maam Mbaye ñaa ne rapport am na. déet rapport cour des comptes. moo am ok mais pas Prodac mais pas Prodac. rapport cour des comptes bu ko setal ba mu set. Mhm. moo am te rapport boobu rapport deux mille vingt trois mhm. te ñun ñëpp liir nañ ko. Mhm. mais rapport Prodac. amul Un jury général des finances, mm-hmm. un rapport final, mm-hmm. ça n'existe pas. Parce que ce rapport-là est un pré-rapport. Un pré-rapport n'est pas un rapport. Un rapport. Et c'est le pré-rapport le le pré-rapport parce que pré-rapport du rapport. D'accord. juste, C'est pas finalisé. J'ai dit, le rapport n'est pas finalisé. Et dans ce rapport, nulle part dans ce pré-rapport, Bin Ningfini Mambay détourner l'argent du produit. Mm-hmm. Nulle part. mais je le défie encore.

amee ah, jomaay waxoon na ko si. campagne oh, oh, oh, bi soo demee béyi da ngay béyi gratuitement ñëw toog mooy don de soi pour la patrie da ngay dem béyi 6 mois ñibbisi ak zéro franc.